ajubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa sallim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi tudd Moustapha Mbaye dëkk Parcelles Assainies unité 10 nekk fii ci juuma gi gën a mag ci unité 10 mu nekk benn juuma bu ñu doon defar def na léegi un an mi ngi doog a pare léegi nag ñu dénkoon ñu liggéey bi ñu pare am quelque point yu ñu waroon leeral par rapport ak ni ñu def ba ñu dénk ñu jumaa ji ak ni lépp déroulé jumaa ji avant liggéeyu jumaa ji ay ndaw dañoo dëkk ci koñ bi gisoon ne jumaa ji jaroon nañ waroon nañ ko peinture ñu ñëw waxtaan ak kilifa yi kilifa yi jox ñu accord fekk tabaski moo doon waaje ñëw ñu peinture jumaa ji kilifa yi amaat projet pour defar mbaaru jigéen ñi pour ñu fay mën a jullee jàkk jigéen ñi ñëw it waxtaan si ak ñun ndaw yi am ci taxawaay bu am solo buñ ci def bi loolu amee nag quelque temps après jumaa ji amoon ay fissures yu fi nekkoon fissures yu xaw a doy waar ba mujj gi paa yi dañoo mujjee wàccee benn partie ci côté dal bi di ko goptewaat am ay ndaw yu fi dugg julli si gis loolu ne mais pourquoi pas jeunes yi nekk ci koñ bi engagé wu pour defar jumaa ji loolu nag après ndaw yi waxtaanee ko ci ba am ay ndaw yu joxe seen kàddu ne pare nen pour euh, accomplir projet boobu loolu amee ñu woo kilifa yi wax leen suñu projet ne leen dañoo bëggoon engage wu defar jumaa ji kilifa yi d'accord ci rafetlu ko ci jotaay boobu noonu defoon nañ fa benn ket mu génnee quinze mille ñu créer benn groupe whatsapp plus de trente cinq personnes ñu waxtaan ne lu ñuy def ba defar jumaa ji gars yi ne dañuy def cotisation chaque mois chaque personne dix mille francs chaque àjjuma mille francs muy tourner autour de quinze mille francs mois bi ñu def ko quelque temps si la ñu commencé nag defar suñu brique ourde defar defar suñuy élément mais suñu projet moo doon wàccee dal teg dal mais bi ñu ñëwee di daaneel jumaa ji yàlla nattuñu poto yëpp damm ñu obligé raser poto yëpp recommencer a zéro mu nekkoon projet bu metti nag mais ñu doyloo woon yàlla ànd ak yàlla rek léegi quinze mille francs yooyu génnoon ci ket bi dañ ci defoon ay euh, carte barkeelu ak ay lettre de soutien yoo xam ne dañ ko doon dugal ci alentour bi kër yi nga xam ne ñoo ñu wër bi ñu ko yóbboo ci kër yi présenté leen ko wax leen suñu projet mais projet bi liñ leen ci doon wax mooy ku ci mën a jàpp financièrement ku ko mënul it nag ñu sa nag ñu ñaanal ndax soxla nañ ci ñaan bi loolu amee ci biir euh, six mois yi cotisation bi mu dajale suñuy brigue yooyu ñu daaneel jumaa ji liggéey ko ci onze mois jumaa ji booy xool onze mois la ñu liggéey jumaa ji ci biir liggéey bi nag nit bu nekk fekk nañu fi indil ñu teraanga bu nekk ci jumaa ji da ngay ñëw fekk fi ay tonu ciment ñu ne la am na ku ko fi wàccee bëggul ko tudd turam am na ay bon volonté yu dëkk ci koñ bi yoo xam ne jàpp nañ ci bu baax xam nañ ne ñun suñuy cotisation 1000 francs ak suñuy 10 mille francs fin du mois mënul woon defar jumaa ji mais ñi dëkk ci koñ bi ñu kenn ku ci nekk li nga ci waroon def li li ci doon sa responsabilité jël nga ko mu amoon benn këll buñ fi yoroon lu waaye am ci liggéeyu jumaa ji këll gi nekkoon ci mbedd bi këll gi pendant onze mois même personnes yi ñooy jaar ci mbedd bi te même personnes yooyu di jaar ci mbedd bi ñoo lay jox cent franc ñoo lay jox cinq cent franc bu ñuy xëy bu ñu fi bàyyiwul seen cent franc bu ñuy wàcc jox la cinq cent franc mu nekk onze mois ñu ànd ak ay ouvrier yoo xam ne liggéeyuñ woon ñu leen di wax jërëjëf dañ doon liggéey ñu leen di fay ouvrier qualifié yi fi jaar yëpp ñu ngi leen di gërëm parce que dañ doon liggéey ñu leen di fay mais wàññiloon nañu ko ku ci doon fayeeku 10 000 fayeeku ñu 7500 ku ci doon fayeeku 7500 fayeeku ñu 5000 gàtt gàtt ouvrier yi fi nekkoon ci 11 mois yi ku ci nekk sa journée boo doon wàcc këll googu noonu tey moo ko doon fay léegi nag bi loolu amee design bii ngeen gis ci juumaa ji le premier juin fekk na lii lépp pare ñu peinture suñu juuma waroon ubbi suñu juuma le premier juin léegi bi loolu amee nag am ku fi ñëw ñu koy wax ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo avant moo ñëw ci jumaa ji woo nañ ko ne ko ah ñun de dañoo amoon projet daaneel jumaa ji defaraat ko mais biñ ko wooyee def ne jumaa ji jumaa un giga bu leen ma sonal li ma mën mooy ñaanal leen mais man sama dërëm du ci dem daan nañu romb fii ñuy liggéey mu génnee lu plus de 2 millions baatare ne da ngeen di fo rek ne lii du dem mais tànkam lu nañ ko parce que kuy liggéeyal yàlla yaay taseek lu ne ñu continuer suñu liggéey le premier juin la ñëw ci juumaa ji le premier juin bi muy ñëw ci juumaa ji fekk na juumaa ji design bi ci biir nii la mel peinture nañ suñu juumaa waroon ubbi suñu juumaa mu dese woon ñu tapis yi tapis yi nag bi ñu desee tapis yi fekk kees gi vide na ñu ne kat yéen ñi nekkoon ci groupe bi ñu lancé audio ne kenn ku ci nekk ku ko ci mën sas nañ la 15000 francs 15000 francs yooyu su ñëwee ñu xool nu ñu kay mottalee ñi ko mën mottali ko buñ ko mottalee ñu jënd ci tap yi ba kenn ku ci nekk d'accord ci ci la ñaar romb jumaa ji gis ni mu men mu yéem ko mu dugg ci biir fekk fi benn responsable taal snabam snap jumaa ji génnee cent mille francs ne cent mille francs yooyu maa ngi koy contribuer ci liggéeyu jumaa ji tapi moo fi manqué expliquer ay détails am mais loolu mu def ñun santuñ ko ko cent mille francs yooyu bi mu paree ci poosam la ko def nekkul cent mille francs yoo dafa am benn responsable bu mu yëkkati jox ko ko ne ko lii mooy sama contribution bi mu defee loolu la jël numéro numéro personnel am Orange Money dugal ko ci euh, snabam pour ku koy dimbali envoyé ko xaalis xaalis boobu noonu nag loolu moom la concerné parce que ñun bi ñuy commencé amoon na numéro Orange Money numéro Orange Money boobu benn numéro la boo xam ne képp ku doon def ci la doon def comité bi nekk ci di liggéey moom nag bi mu ñëwee dafa dugal Orange Money amul benn dërëm bu ko nit envoyé mu ñëw ne lii diw moo leen ko jox mu nekk liquidité bëggoon leeral loolu amul benn dërëm bu mu yëkkati ne diw moo leen jox xaalis bii nii pour liggéeyu juumaa ji euh, waa loolu lu tax ñu bëgg ko leeral mooy dafa bëri lu mu wax ci juumaa ji loo xam ne dëppoowul ak ni mu demee mais période bi mu koy wax ñu nekkoon ci digg liggéey te juumaa bëggul coow juumaa bu fi tëj coow ko tëj juumaa am na financement dem ba wër a pare te du pare ndax ay xëccoo te ñun nekkuñu woon ci xëccoo yàllaa taxoon ñuy def parce que jeunes yi durant liggéey bi yëpp amul benn média bu mës a médiatiser lii bi mu fi ñëwee ne lii xew te bëggoon nañ liggéey ba pare te lii du xew mais nag gor bu ñu tegee dara. nga da ci war a jël li si sa responsabilité nga leeral ko kon bi mu ñëwee def loolu Orange Money am la jël def ci numéro am point boobu noonu na leer nañ amul kenn ku ko jox dërëm mu ñëw nañu dërëm bii nii diw moo la ko jox gis nga ndaw yi toog ci ginnaaw ñoom ñoo liggéey jumaa ji ndaw yi toog seen ginnaaw ñoom ñoo am xalaatu nañ wër nañ mën a liggéey jumaa ji bi ñu demee nag mu def loolu quelque temps la ñëw ne mokket bi Bougane Gueye Dany engagé na ko ñu ne ko yàlla na ko yàlla fay mu daw deux jours ñëw ne Bougane daw na génn dafa rasu dem naa bureau mais deux cent cinquante mille la ma jox mais deux cent cinquante mille yooyu taxul mu yëkkati ko ne Bougane lii la joxe Diène Marcel Diagne la indi ay moquette ne moo ko mujjee jënd ne Diène Marcel Diagne moo jënd moquette yi bi mu ko jëndee ñu indi ko livré ko ñu jël moquette yi teg porte yi bi mu fi ñëw fekk na ñu monté fi ay porte boo leen xoolee ci premier snabam porte yi fi nekkoon porte yu rouge la fekkoon nañu peinture suñu porte defar ko ba pare mu indi fi ku naan xaban xaban engagé wu gis na porte yi fekk na fi porte yi mu fi fekkoon engagé wu ne damay changer porte yi te nit bu ñëwee ne damay defal yàlla mënoo ne ko doo ko defal ñu ne ah kon ko def am yéene liggéey ñu ne ko acca bismillah mu ñëw jël ay mesure porte yi la ñu indil bi mu ko indee ñu peinture monté suñuy porte ci porte yi am na ñu ne woon porte yi fi nekkoon moo dàq mais comme nit nag dafa am yéene liggéeyal boromam da nga ko ci def ndax li nga yéene sa bopp rek nga war a yéene sa morom moo waral ñu tekki port yi def ci porte yi nii lustre bii nii ci suñu ginnaaw moo ko fi indi ki ko jënd ci koñ bi la dëkk mais def ne ko bëgguma ko tudd sama tur mu ñëw ne diw moo indi lustre bi te bëggul ku tudd turam léegi nag ñu ñëw ci façade bi façade bi bi ñaar di ñëw fekk nañu peinture ko ba pare mais bi mu defee snabam la la waa Jamil Karo may ko cent quatre-vingt-dix mètres carrés karo mu indi fi karo yi ci biir loolu nag ñu amoon benn point bu ñu bëggoon leeral ci karo yooyu karo yi bi mu ñëwee konka ñi ŋànk juumaa ji am na loo xam ne kenn du leen ko wax loo parce que dañoo sekk liggéey bi ay gor gis xaalis bu nekk dugg ci juumaa ji mais kenn musu si sàkku ñu tudd turam wala bëggul woon ñu xam ne moo def lii mu am ku mu jël ci koñ bi ku dëkk ci koñ bi di nit ku matadi maa ngi jéggalu ci kàddu gi ndax Afrique moom boo feebaree duñ ko teel a détecté mais bu dee yenn pays yu xaw a avancé yi yenn feebar yi dañ koy teel a détecté nit kooku parti politique bu nekk miite na fa sabar bu nekk ma nga fa boo fëggoon léegi ñaari bool mu ñëw taxaw 2000 francs mu attaayal la genre nit yooyu noonu waruñu leen di imposer société bi pour ñuy wax am na loo xam ne bu njëkkoon am na ñoo xam ne tey ci baar bu ñu toogoon di wax dañu naan hey yow noppil te da ngay noppi mais tey jamono dem na ba ku bëgg wax di nga wax parce que réseau sociaux yi moo jur lool nit kooku nag bi mu ñëwee wax na fi lu ko neex ne juumaa ji ñaar fukki at kenn defaru ko nga ñëw defar ko loolu dafa ruslu ndax juumaa ji ñun. bi ñuy xàmmee ñuy bàyyi ci taarix lu ñuy wax seen cotisation ak seen farlu moo defal jumaa ji amul kenn ku leen financé nga ñëw wax wax ju la neex ñoom ñëpp ñu dégg ko mais kenn demul ci moom ne ko li nga def pourquoi parce que ñun ñëpp dañ jàpp ne loolu feebar la feebar boobu nag ñuy ñaan yàlla mu wéral ko ndax loolu dal na ñu bëri ci dëkk bi di wax waroo wax. bon volonté yooyu muy dem amul kenn dañ koy leeral amul kenn ku ci yëkkati dërëm mu ñëw ne dërëm bii diw moo ko joxe Jamil bi ma wax moom moo deg moom moo déplacé wul boppam ñëw xool ay buntam dem indi ay buntam ñu monte ko lampe lustre bi nit moo ko jënd ci koñ bi la dëkk mais ci moom la jaar mu dem jënd ñëw monte porte arabe bi porte aluminium bi ak porte bi ci ginnaaw fi imam bi duggee da ko changé deux cent quarante cinq mille la da ko génnee liquidité ñu wax ak ouvrier bi ouvrier bi ñëw defal ko bilan ne ko lii la devis ne ko lii la mu génne fay mu defar ko ñaaxarañ loo karo yi karo yi ci biti bi Jamil karo mayee loolu fekk suñu morgue ñun karo la nañ ko ba pare ñu indi karo yi ne nuñ koy def xam ñenn ñu ne kon te ñoo jéem a xool nu ñu def sabablu karo karole façade bi mais fekk nañu penti suñu façade ñaane ñu euh, karo yi am na ku ko engagé pour karole jumaa ji mu nekk 400 mètres carrés 400 mètres carrés yooyu noonu bi ko waa ji jëndee ñu defal ko payer livre non payé ñaa fay xaa fay euh, bi indi karo yi jël bon bi ñu ko defal livré non payé dem pour ñu fayal pour waa ji delloo ko xaalis. foofu fekkee wuñ xamuñ nu mu fa demee lim ñu wax la ñuy jàpp ñu jël engagé pour carole wa suñu caroleur mu commencé carole carole nag bi ñu koy carole suuf yeeg la cay dem nag moo ko jënd carole suñu façade mu indi fi ñaari aspirateur ñaari aspirateur la fi indi pour moquette yi léegi nag loolu lépp boo gisee ñu koy leeral c'est parce que dafay wër ne man maa tabax juumaa ji dañuy laaj ndax premier juin ku fi ñëw ci juumaa ñu ubbi juuma bi le 10 juillet ndax nit kooku noonu mën loolu nit mën na ci tabax jumaa ndax nit bu doon defar néegam ci durée un mois ndax mën na ci terminer néegam ay góor ay jaamu yàlla doon jaamu yàlla ci seen néegu borom nga fekk leen ci tooñ leen tooñ bu njëkk mooy nga imposer leen pour ñu leeral seetal seen der ci kanamu média bi te bëggoon nañ liggéey lii te média du ko yëg kenn du ko yëg mu defloo ñu loolu obligé nañu ñuy def lii nii te waruñu ko woon def ndax bi ñuy def yàlla taxoon ñuy def mais bëri na paa yu lay romb ci koñ ñu naan paa bii moo dóor keesu jàkka ji ba mu koy dóor amaane ay doomam juddooguñ mais way la bu koy topp ba ci ay sëtam spot yi bi muy def premier snabam boo seetloo làmp yëpp a ngi tàkk spot yeeg lumineuse yëpp a ngi tàkk mu ñëw tudd turu nit ne diw moo jënd lii te xamul kan ban gor moo génnee xaalisam jënd spot yi ndax nit wër na xalaatee noonu ndax bës jar na loolu ndax sëkk ak nit ki teraanga bëgg ko teral jar na nit ki lu mu nit defal yàlla nga récupérer ko dénk ko keneen koo xam ne defalu ko yàlla ndax loolu àdduna jar na ko. nit ñu baax ñu bëggul seen tur siiw kenn tudd leen fi mais nit yu mu indi ñëpp la siiwal ci sinaabam te li mu siiwal ci snabam moo ñëwul ci juumaa ji dañ koy leeral li ma fi lim loolu la fi indi mais bëri na som bu mu tudd ne diw jox na ma temps diw jox na ma temps temps boobu mu tudd ne diw jox na ma ko amul benn dërëm bu ñëw mu yëkkati ko ne liikat kat yéen liggéey jumaa ji diw moo ko def ci jumaa ji continuer leen seen liggéey liggéeyewul noonu Orange Money li ci dugg xamuñu ko moom la concerné ndax ñun yàlla lañuy liggéeyal mais nag génnaat ci média bi naan diw jox na ma lii jox na ma lii ci tuuru jumaa te juma ji gisuñu ko buñ ko noppi mu dem ci beneen juma def fa leneen lu mel noonu bàkkaar boobu dañ ciy am. a hmm. ah, loolu nag dese nañoo wóor ndax loo gisul danga naan gisuma ko ndax ci poosam la ko def. wala ci poosu jàmbur la ko def loolu moom la concerné mais ñun luñ ci war a leeral buñ ko ci leeralee nopp buy déglu nopp bu wér bu dégloo dina xam wax ji ni ñu teg fan lañ ko war a teg te ñun wax ji fi ko teg soriwut ndax da nga ñëw ñu ubbi la juuma wan li ñu def wax li mu def li mu def nag dañ ko ci ñi ko ko defal bëggoon siiw siiwal na leen parce que ñun bi mu fi indee karo yi premier jour bi mu defee sinaab ak nit ku waye di googu dañ ko woone ko carrément ni ngay liggéey liggéey noonu ay gor ñoo ŋànk jumaa ji di def te bëgguñu ku xam ne ñu ngi def say karo ak say li nga fi indi yóbbu ko nga bàyyi ñu niñ doon ni ni bay dundee ba sax si sikkeem mën nañ ci continuer ba dee te kenn du ko xamal bi loolu amee mu ne xàmmewuma ko woon noonu mais ñi may jox seen xaalis ay dóorkat leen su ma leen dóorul nii duñu ñëw bu ñu la joxee sax dañ la naan siiwal ma ñaa tage ma ñaa sinap ma bu ma fàttee ñu ne ko nag ñun liggéeyewuñ noonu mais nit ki moom moom téléphone am mënuma contrôler li ñaa di snap ak lu mu snapul mais lépp lu mu fi snap wax ko li ñu leen wax nii ci audio bi ci ci vidéo bi ne loolu la fi indi loolu la fi indi leneen lu mu tudd gisuñu ko mhm. Mhm. ah loolu képp ku am xel di xalaat li mu doon def boo xalaatee mën nga ko xam mais ñun li ñu jot ñu dénk ñu te ñi ñu dénk ay kilifa leen ndax juuma ku ñu xool xam ne xale du yor juuma mais nag xale bu loxom setee mu mën a bokk ak ay mag loolu benn défi bu ñuy lancé jeunes yëpp jeune bu nekk ñu ngi la naan jàkka ji nekk sa koñ néegu yàlla bi nekk sa koñ am nga ci part de responsabilité nañu bàyyi juuma yu ñuy jël di ko bàyyilee paa yi paa yi sonn nen ku dem ba am 70 ans kooku sa xel mooy njëkk a sonn sa kàttan néew na ñu bëgg la bàyyi liggéeyu juumaa ji waxuñu nag benn jeune mu dem engagé toj juumaa koñam mais bu ñu organiser woo bu fekkee peinture la ñu mën buñ ci xaar payi nañu peinture juumaa ji challenge la bu ñuy laaj lancer jeunes yëpp foofu la àdduna toll bu fekkee peinture nga mën demal nga peinture juumaa ji bu fekkee climatiseur nga mën a changer demal nga changer ko bu fekkee carolage nga mën demal bu fekkee nag dal bi gëm ngeen ne boo ngeen ko engagé defar ko dem leen ngeen engagé ngeen defar ko ndax loolu le jeune bu nekk war a taxawee ndax xale day dee mag day dee wóorul nag nga ne damay bàyyi ba nekk mag doog a jaamu yàlla loolu wóorul lii nag occasion la pour ñu wax jeune bu nekk mu préparer boppam ci néegu yàlla bi am na ci part de responsabilité beneen bi mooy këll gi ki ko yoroon rakku ñaaxarañ loola onze mois la ko yor di gor piir jàmbaar piir naaj bi da doon tàng du mës a bàyyi bu xëy see 9 heures balaa moo wàcc 20 te lu mës a dugg ci këll gi versé na ko ouvrier yi fi nekk yépp këll googu moo ko fay mën nañ na nag këll du defar juuma partenaire a koy defar partenaire mooy lan partenaire mooy lan amul benn autorité bu ñu seeti si juuma ji si parcelle fii nii ak fudul parcelle amul benn autorité bu ñu fëgg buntam ne ko dañu bëgg a defar néegu yàlla parce que dañu gëm ne ay jaam lañ te li ñuy sabablu di ko am mën nañ ci dem ak suñu alentour ñu ñu ko bokkal kooku nag gor la bi mu demee këram fa la defee point de presse am gars yi mu wax lu ko neex moom ñaar ñuy wax ne rakkam jooju noonu doon fi liggéey taxawaayam boobu mu am naw nañ ko naw bu am doole rafetlu nañ ko rafetlu bu am doole di ko wax ne gor piir la ni ñu ko jàppee woon benn tey lañ ko gën a jàppee fukki loxo bëri na lu mu fi def loo xam ne kenn du wax parce que jumaa moo sàlloowul di wax mais bi ñu paree nag foog ñu leeral suñuy der mais booy boobu gor dëgg la li mu fi def kenn defu ko ci ci ñun onze mois dem na nag dégg ñu naan lu sotti am borom waaw ñun ñu ñun moom moo commencé ñun ñu terminé ñun ñoo ñu moom léegi li mu def moo gën fuuf li ñu def loolu mooy lu sotti am borom ñaam dafa def mu sotti ñun ñu bëgg aaki moo ma leen di laaj ndax ku fi def 11 mois naaj bu tàng wàcc nga fi heure bu nekk di ko def te yàlla tax bëggoo la siiwal yow nga ñëw fi si un mois indi fi riir bu toll nii siiwal koo xam ne wax diw moo def lii te diw boobu deful dara loolu ñu lay laaj ndax loolu mooy sotti am na borom wala sotti amul borom wax jooju nag jàpp nañ ko mais aadama ñu ngi koy gërëm di ko sant aadama ñaa gërëm nañ la sant nañ la xale yi fi nekk yépp gërëm nañ la sant nañ la ñàkkul nag. am point yu ñu fàtte xam naa dañuy jox njàcc rek mu am lu mu ci leeral incha allah di fàttaliku climatiseur bi moo ko changé parce que nit bu indee lu mu indi wax ko climatiseur boobu mu changé dafa am benn femme bu ne moo engagé pour changer ko turu femme bi jàppuñu ko huit al euh, huit fenêtre aluminium indi na ko fi mais pour arabu fu jigéen ñi jullee la ay ay. Euh, fenêtre en bois moo fa nekkoon mu indi fi ay fenêtre aluminium femme boobu nag moom moo demal boppam ba ci menuisier aluminium bi menuisier aluminium bi facturé ko mu fay ko du xaalis bu jaar si ñun li ma leen wax nii yëpp du benn xaalis bu jaar ci ñun léegi nag ñaar li ma leen wax aspirateur la fi indi moquette buntu climatiseur huit fenêtres aluminium loolu la fi ak lustre bii nii loolu la fi ñaa indi ñuy laaj ndax un mois nit mën na ci defar juuma juuma boo xam ne ay gor sonn nañ ci bàyyi seen liggéey ay responsable kenn ku ci nekk ñi am seen atelier ñi am seeni bureau di ko tëj di ñëw di jàpp ci liggéey bi ay gor sonn nga wër médiatiser léegi nag man li ma yéem mooy réew mi lu tax bëgguñu ko way lu tax duñ jàppale kuy dem nit la ñuy bañ a gis foog nga xaw a am noo men rek lobby bi jàppale la loo def rek ñu ne walla nañ ko pardonné dafa juum mag du juum mag lu mu def day rendre compte lu ci doon suñu responsabilité jël nañ ko lu ñu fàtte xam naa njàcc bu duggee dina ko leeral incha allah jërëjëf. liñ ci jublu woon rek mooy que ni du xuloo waxewuñu wu ñu dënn waxee dara mais c'est juste que am na loo xam ne boo ci nekkee ba pare ci day baax ngay leeral waaw parce que lii leeral kese la ko du leneen leeral kese la daanaka mën naa ne Tapha. kii bi yëpp wax nga ko quoi liñ ci war a wax yëpp wax nga ko liñ ciy dolli rek mooy que ni comme ni nga ko waxee jumaa bi yaakaar naa ni ñi si jàpp bari nañ surtout parce que bu ñuy seet waa koñ bi am nañu fi dëkk di ay bonne volonté ñoo xam ne kenn du leen dégg jumaa bi def nañ fi un mois yoo xam ne doo xam ku joxe ak ku joxewu waaw ñu dëkk si koñ bi bari na fi ay paa yoo xamante ne dañ fiy def loo xamante ne dinaa dina xëy ñëw fii gis suuf su jalu ba fees ciment yi bari fi yow da ngay ñëw sax doo xam koo joxe noonu lañ daan doxee nag ba léegi yàlla rek doo ci dégg kenn tooguñu fi benn yoon ba sant kenn amuñu ku ñu parce que nekkul looy sant parce que du yow yaa ko moom du ñoom ñoo ko moom ñëpp ko bokk loolu ñëpp ko bokk li ci des fi may terminer parce que Tafa comme ni nga ko waxee wax na lépp fi may terminer mooy rek nit ki lépp loo xamante ne sumb nga ko rek dañ ciy am ngëm-ngëm parce que ñun bu ñuy booy seet. bi ñuy jumaa ji bi ñu ñëwee suñu objectif daaneel dal la woon defaraat ko xëy na peut-être quelques modifications après ñu dem défi bi ñu defoon bi ñuy commencé bi ñuy commencé dañ ne woon défi bi bu ñu amee 7 million et quelques yu xaw a jàpp 8 millions tuuti bu ñu ko amee mun na ko mais bi ñu defee défi lii jumaa ji bi ñu ci paree défi bi bi ñu ko calculer lépp estimer ko àgg na presque ay vingt et quelques millions moo lay wan ni nit ki. lépp loo war a def yow engagé wu ci rek def ci li la war li ci des yàlla ji rek moo la ci moo la ciy jàppale parce que lii bu ñu ko defaree tey ba mu agsi fii ñun ñëpp xam nañ ñu nekkul suñu mën-mën kese ñu ne suñu xaalis parce que suñu xaalis mënul lii suñu ngëm-ngëm moo fi àgg yàlla jàppale ñu si comme ni mu ko waxee di sensibiliser ñëpp ñu nga xamante ne tey jii ñoom am nañ seen jumaa wala am nañ seen jàq seen koñ bëgg lii comme ni mu ko waxee am na loo xam ne paa yi mënuñu ko am na loo xam ne ndaw moo ko mën am na loo xam ne ndaw moo ciy sóobu yàlla di jàppale ko képp ku bëgg comme lii mét metti na méttiwul ngëm-ngëm la ak ngeen déggoo ci li ngeen di def ak ngeen di def te yàlla rek a tax nag kese yaakaar naa ni loolu bu ko ndaw yëpp doxee ku ci nekk ca fa nga dëkk sa jàkk bi nga nekk ni nga bëgg mu mel yàlla mun na la si jàppale ba loolu mu sotti waaw loolu daal lañ amoon ci kàddu yi. pour man bu ñu fàttewul dara. waaw mu am euh, benn point boo xam ne benn bool doon na fi ñëw du ay benn bool sax ñetti kër onze mois yëpp seen añ daan na fi ñëw añ boo xam ne am na ci ay snapam mu koy snap añ boobu noonu onze mois añ bi chaque jour bu ouvrier ñëw. buntu jumaa bool yi dina ñëw fekk ñu fii teraanga googu gis nañ ko xeebuñ ko benn yoon añ boobu noonu joxe fa dërëm dépense te saa yu ñu xëyee du ñu xam borom kër gi nu muy def ba am dépense am mais lu fi mës a nekk ba ci coulage beeg yëpp fexe neen ba indil ñu ñu añ sonnuñu ci benn yoon te joxuñu leen dërëm joxuñu leen dépense te ñooñu ci koñ bi leen dëkk bëgguñ ko tudd seen mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu ñëpp di jéggalu ci kàddu yi di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.